Véna transport am na benn activité bu fi def yàggul muy grève yaakaar naa grève boobu kenn mësul gis grève bu lu mel li taxoon nag mu am loolu laa bëgg a leeral ak li nga xam ni moo xewaat après loolu amoon cadre unitaire boo xamante ne bii fukki syndicat ak ñaar ñoo ko defoon ba ñu gis résultat yi mu def ci transport waaye loolu nga xamante ne bii moom la defoon arrangé wul état bi. comme arrangé wu ko nag foog mu jóg ak pexe pour yàq lool waaye nag dafa mel ni réussite na man jàppoon naa ni sëriñu état jàppatuñu waaye ba léegi bàyyiwuñu ndax bi ñu defee grève bi man li may wax ay preuve yu leer laa ci am bu ñu doon wër Sénégal dañ doon wax Alassane Ndoye moo jiite cadre bi fu ñu dem loolu la ñuy wax waaye bi ñu ñëwee état bi xam ni li ñu def arrangé wu ko dafa commencé jóg jóg dugg suñu biir commencé ñëw di ñu diviser nag. c'était juste que ñu leeral askanu Sénégal que ni ñun transport de manière générale loolu moo ñu intéressé ñun ñàkk ñu ànd ak état mais ci dëgg la ñuy ànd ak état état moom moomuñu mais état dafa def benn jeu boo xam ni dafa gis ni grève bi ñu dem def cadre ànd ko douze secrétaire général ñu réussir ñu réussir ko total mu nekk équipe boo xam ni dafa gagné. ligue yëpp mu gagné ko gagné na ligue des mu gagné ko gagné coupe du monde ñu xam ne équipe bi dafa dëgër te arrangé wul état mu dugg ci suñu biir ci biir cadre bi te lu leer nag lañ ci am te bu ñu bëggee mu leer mu leer ñu dugg ci suñu biir cadre bi fexe ba diviser ñu bëgg ñëw diviser pour vous dire nit ñuy diviser mooy élection mu ngi ñëw ñu am lu leer naññ lu ñu génne pour am ñu ànd ak ñoom. wax ni nañu diviser cadre bi ñooñu noonu nag jublu pour ànd ak état ñoom sax jóg nañu pour vous dire que ne dañuy dem ci tournée ci région yi dañuy dem ci gros porteur yeeg dañuy dem te ma xamal leen ni en tant que gros porteur en tant que syndicat gros porteur an bokk ci cadre bi ñooñu loolu ñuy wax noonu di ko def lépp rôle ak ay tappale yoo xamante ni nii loxo état moo nekk ci biir. te loolu may wax preuve yu ci am. parce que dafa am benn kilifa ci état bi moo woo benn nit ci ñun man na maa wax turam waaye buñ ci yeggoon tey ma ni diw la mu ni ko dama bëgg ngeen tàggoo ak Alassane Ndoye mu ni ko Alassane lu mu ñu def mu ni ko daal Alassane Ndoye dafa contre état bi kon dañu bëgg ngeen bàyyi ko kooku moo ko wax ci pleine réunion ñëpp di dégg mu ni ko waaw est-ce que man rek nga ko wax ndax doo ko wax ku ñu wax Papis Touré sa Casamance mu ni ko du mag ko ko wax parce que kooku nitu Alassane Ndoye la kon kooku dafa fidèle léegi nag loolu nga xamante ni moom la waxoon kooku ba mu jàllale ko ci réunion autorité boobu loolu la def si kadar bi yëpp ba tax nag ñu ni léegi nañu génne Alassane Ndoye fal keneen parce que xëj na kooku ñuy fal moom lu ñu ko sant mu def waaye Alassane Ndoye kenn mënu koo sant loo xam du yoon mu def ko ndax ragal la loolu nag laa bëgg a leeral askan wi. créé nañu cadre bi nag ñoom seen cadre waaye cadre bi ñu bi demoon grève cadre bi ba léegi nii moo fi nekk ku si génn yaa si génn te waxoon naa leen ni ku génn si cadre bi dee waaye yaakaar naa ni ñoom ñoo ñu génn dinañu dee. kon nag ñu leeral leen ni cadre baa ngi fi mu nekkoon waaye ñoo ñu génn ñu ngi waaj a tourné nag pour si régions yi waaye na ngeen xam bu ñu ñëwee nan ngeen leen di recevoir ak ñu ngeen di recevoir ñooy kan. que ni Sénégal ñu ñëpp ñoo ko moom ñu ñëpp ñoo ko bokk mais gis nga transport c'est pour nous. bu mu déglu ñenn ñi bu mu déglu ñenn ñi te bu mu ko buñ ko yàqal avenir am man xam naa ko bu baax ñoo dëkkandoo Géejawaay mais li wérte woor mooy fii mu fii ñu ko bëgg a jëmloo foofu baaxul baaxul ci état bi kon li ñu leen di xamal mooy cadre bu fi nekkoon moo fi nekk mais ñi nga xamante ni dañu bëgg a jaay chauffeur yi ak askan wi nga xam ne dañ leen a bëgg a jaay comme ni ñu mu demee woon ci grève bu njëkk ba ñooñu noonu nag ñoo continuer seen combat ba léegi ma koy xamal chauffeurs yu Sénégal yëpp ak transporteurs yu Sénégal yëpp ak ku yëngatu ni loolu ñoo ñu jóg ni ci cadre bi la ñu nekk ba tey ni nii génnuñu cadre bi ay tappale ak ay sos ak ay provocation ak seen poos yi bopp moo leen tax a jóg. gis ngeen barka démb li président de la république def muy Macky Sall loolu mooy jaxase transport ak préfet bu Pikine ni ñu ko waxee xam nga euh, war gaynde yi nga xam ni moom la ñëpp di coow. ñun suñu njaboot lañu bu fekkente ni bii nag dañuy def loo xam ne waruñu koo def ñu demee sa Macky Sall da leen a war a wax ni dellu leen sa ministre du transport mu toog waxtaan ak ñi di yore transport ñu seet yéen ñu nga xam ne li ngeen di def te waru leen ko def ñu seet nañ lañ leen di uufe te ngeen bañ a yàq transport bi. waaye deful loolu daf leen a woo di leen satisfaire fu ñu téye woon war gaynde mu ni dem leen ñu bàyyi ko loolu man kon moo yàq transport bi. loolu nag ñun ñuy dund si transport nooy jóg jàkkaarloog moom te loolu ñu bari ñi ma wuñ ko waaye Alassane Ndoye ñi mën naa jiite loolu moom. nu ñuy jàkkaarloog moom li ñu ko defoon sànq dóor ko gerew boo xam te ne bi xamatul fu muy geesu ak fu mu jëm loolu nag li ñu ko mayoon bu ñu ko ba. kon bii préavis bi man cadre bi dinaa leen woowaat ñu déposé waat ko su fekkente bi cadre bi ñëwuñu pour ñu ànd defaat ko man Alassane Ndoye dinaa ko diriger man. waaw xam nga code la bu bees bi bi ñu koy tëgg woowuñu kenn koo xamante ni kii code de la route boobu moo koy moo koy ci moom la koy appliqué. code de la route moom Sénégal yëpp lañu koy teg waaye auto transport en commun la ñu ciblé ma wax ni code de boobu ni ñu ko tëggee ànduñu si ndax permis à point bii ñu teg tegoon nañ ko bu yàgg boo xam bi ñu koy teg fa ñu ko doon teg xamuñu woon sax li ñu doon def ci permi à point la jëm. mooy bi ñuy changé permis de conduire yi mi rek keroog ba ñu koy changé benn Alassane Ndoye képp moo taxaw bañ parce que ku ñuy wax Cheikh Omar Gueye boobu mooy directeur transport terrestre ni alors Macky Sall daf fee indi benn projet boo xamante ni bii pour ñu changé permis yi ñoom ñëpp ñu daw naan projet Macky Sall bi projet bu baax la man leen man projet bu ma xamul lu ne si biir man Alassane du ma ko accepté ana lu ma waxoon kon tey jii kenn ku si yor sa permis tey ñuy localiser sa numéro permis sa numéro téléphone mën nañ laa localiser si sa permis bi nga yor permis à point boobu bu ñu demoon peut bay dindi say point du ñu ñëw fa nga dëkk duñ la woo fa ñu toog la ñuy toog dindi say point te doo ko yëg loolu nag man nañ ci taxaw permis à point jamono bi nga xamante ne bii si lañ ko war a def du jamono bii àggaguñu foofu France bi nga xam ne ñooñu sut sax fukki at ñu ngi koy def te mën ko ñoo yeggal kon ñun buñ ci dugg toppandoo sa moroom loolu rek laay li si des ci réunion laa koy woo di ko wax maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm.